asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Abdourahmane Mbacke Afia waaw. ci hmm. hmm. hmm. waaw sant yàlla bu baax euh, sant yàlla bu baax a baax nag di wax ne euh, dañuy doole sant suñu borom ngir moom mi nu may Euh, nu fekk waat ay élection waaye fekk ko ci jàmm di wax ne élection yi senegal réewum jàmm la moo xam ni yàgg na def ay élection du tey lan ko mas a def waaye ana bu ne bu jubsee lu ne da koy dégg waaye bu egsee rek ndox mu sedd rek mooy ci faral di am may wax ne élection yi nag ah, jàll na ak jàmm dëgg yàlla def nañ ko ci nin ko war a defee ba yàlla may ndam suñ candidat di président Macky Sall yàlla may ko ndam mu génne premier tour muy euh, loo xamante ni nag lu lu lu yàgg bàyyi xel la ne noonu rekk lay deme ndax euh, ab liggéeyam ci réew mi ak it euh, ab taxawaayam bu rafet ci réew mi te ñëpp rafetlu ko mu mun ma sax xam ne dana génn ci premier tour ginnaaw loolu nag wax dëgg yàlla comme résultat bi yàlla dogal na génn na. Euh, ñi nga xam moom ñoom lañu wóolu teg leen ci suñu boppum réew euh, nga xamante ni euh, lépp lu jaaxal doomu aadama yi ci seen taabal lan koy teg nu saytu ko luñ ci génn doy na kon liñ ci génn war na noo doy war na doy Sénégal yi yëpp ma di ci wax nag ne nit ñi nan ànd ak dal te dem liggéey ah te xam ne ñi doon xëccoo yaa yàlla dogal na président Macky Sall la ko suñu borom teg ci ay loxoom ñi ci des nan xam ne mbir mi moom du luy jeex tey kon nanu góor góorluwaat jaajuwaat te xam ne yeneen élection ñoo ngi ñëw kenn ku si ne élection yi ñëw la si yéen it suñu borom mën na la ko may waaye ñi nga xam ñooy ndaw ñi daal maa ngi leen di lancer appel di leen wax ne nanu dellu ci kër yi te bañ a yee fitna ndax fitna amul solo ndax li alxuraan dina xam ne wa tàqu fitna laa tusiibanna lazina salama minkum xaasa comme eh, ñiy taal fitna wala ñi ko bëgg a taal wala ñi nga xamante ni seen yéene wala seen bëgg-bëgg lool la na xam ne buñ ko buñ ko defoon du duñoo tëdd seen i kër wala seen lal di nelawit mën naa law ba egg si ñoom kon liñ ci wax daal te di leen ko wax rek mooy ñun ñëpp nanu maase gëm yàlla te xam ne ndogalu suñ borom ah yàlla dogal na teg na ko si loxol président mag Sall nan ànd ñaanal ko rek eh, lépp yan bi woyof ci kawam eh, Sénégal jëm kanam li mu liggéey liggéeyal suñu euh, euh, Sénégal gépp mu liggéeyal ko ni mu ko bëggee loolu rek laa am lu ñu ci wax si loolu. Mhm. Euh, waaw loolu moom li ma ciy wax rek xam nga élection boobu bu amee kenn ku si ne ak ni ngay gisee bëriwut ca làmb ja sax nga gis ñaar ñu bëri kenn daanu faaw mu wax ne lii la ah, waaye lu mën a wax rek ñun. ki ki nga xam moo doon arbitre muy justice te suñ ñu wóolu leen nag bu baax a baax ndax gis nañ ne ci yoon rek la ñuy dox euh, euh, comme ñoom ñoo àtte te ñoom buñ àtte woon ni ne président de la république day dem deuxième tour it ñun dañ ci dañ dañ dañuy fas yéene jaaju te dem deuxième tour waaye comme àtte nañ ne ah, wax dëgg yàlla gagné na leen ak cinquante 58 pour cent virgule 27 euh, nan nan jàppe na loolu la rek tey ñu gën a góorgóorluwaat déedéet du responsabilité état ndax état si boppam mu wér dig ne moom moo gañe bañ na ko ba euh, premier ministre bi mu waxee sax ñoom dañoo génn artu ko ne ko waroo wax euh, ñoom nu wax euh, waaye ki nga xamante ni tey ñun ñëpp moom ñoom lañ dénk sin justice muy muy muy muy muy muy muy justice bi nga xam ñoo fi ne ñoom ñoo génn wax ne président de la république moom moo gañe monsieur Macky Sall kon ñun amul lu dul félicité ko ñoom kon wër noo wax ne état ndax état yi ñun ak ñoo ñoo yamoon rek danoo waaw viénage bi moom ñoo man man rek boobu ba léegi maa ngi ci dox di si ñaan di digalit mbooleem imaam yi fu nu mën a nekk ci biir réew mi ak ci biir bitim réew suba la ajjuma seen suba bi nan ko def ngir jàmm ndax Sénégal ñoo ko moom euh, nit ñi nga xam bu ñu taaloon Sénégal mënunoo daw dem fenn fii si dañuy des ci biir réew mi kon nan fexe ba jàmm di am ci biir réew mi ndax jàmm jooju mooy li nga xamante ni euh, moo moo moo jig Sénégal te moo moo moo nu jig ñun ñëpp. maa ngi siy woote di si soññ sëriñ si di si soññ it imaam yi yëpp seen xutba suba ak responsable politique moom ñooy lépp ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom euh, ku mel na président Idriss Seck ndax moom ci jàmm lan ko xamee kenn mësu koo xam si violence kon euh, defe naa ne moom du ko digle te ñim àndalit wala ñi sës si moom duñ ko digle xañ na bëgg nag moo mel noonu ndax bëgg boo ko defee euh, boo sañoon boo ngembee sa mbër yóbbu ko sa làmb ja euh, bu fa dee jóge day am ndam waaye nag nan xam ne ndam yàllaa koy joxe te jox na ko président de la république kon nag nan muñ te woote jàmm te xam ne jàmm nag si la lépp xaj jàmm jooju nag si la lépp de waxoon naa ko euh, lu jiitu élection yi nee naa ne réew mi képp ku ko xalaata yor doo ko taal ndax boo ko taalee ab doom nga ci fekk te ab doom kenn du ko jariñoo kon nag nanu nan ànd ak dal xam ne a ah, élection yëmut ci benn ñaan nañ yàlla fekk koy ati ati at kenn ku si ne ah ngemm waat dem tey ñaan yàlla may la may la xëy na la nga la ngay wut waaye pour le moment daal ah comme euh, yoon jox na victoire président Macky Sall nañ ko félicité te ànd ak moom liggéey président Macky Sall ma di Euh, moom it di ko ak di ñaax mooy wax ne président la boo xam ne lan ko xamee woon mooy président bu bu bu bu dal président boo xamante ni euh, bu am jàmm la jàmm jooju na continuer euh, di ko ñaan it na na woo ñi mën a àndal ñoom liggéey ci ci ci ci ci donte ci candidat yi lan woon nanu xam ne ñoom ñëpp defar Sénégal moo leen taxoon a jóg kenn ku ne bi ngay def bi nga am yéene defar Sénégal it mooy para présenté woon nga euh, euh, présenté woon nga benn karne bu wane ne lii nga fii nga bëgg a jële Sénégal fii nga ko bëgg a yóbbu te lépp lu baax la woon kon nag ñoom xalaat yu baax yooyu na amoon ne leen woo ànd ak ñoom ci xalaat yooyu waa te jéggale ndax jiit day jéggale di jëlale ndax euh, loolu la la mag ñu baax ñi neewoon biir Sénégal yëpp moom lan daa doxe ba tey Sénégal egsi fii ba nga xam réew yi nga xam ñoo ñu wër ñëpp ñoo ngi ni ñee ndax élection bu mel nii mosu fay am wala mosu te bariwul si lu muy am ci yeneen réew yi bo ànd ak jàmm ànd ak dal nit ñi dem woote ni ñu war a ñibbi seen i kër te dégguñu fi dara te loolu mag ñeek fi defoon te mag ñooñu nag loolu lan daa digle kon nag euh, ñoo ngi koy digal daal na jëllale man si euh, li ma koy wax mooy bu mu topp kenn bu mu bu mu kenn. na na na na na nekk si jàmm woo leen ñoom kenn ku si ne ku si mën a liggéey ndool mu ànd ak ñoom liggéey te bañ a toppaate ma koy ñaanit ah, ñi nga xamante ni tey eh, ku mel ne rakkam eh, Karim Wade ak ku mel ne magam Khalifa Sall ñoom ñëpp ah mu woo leen eh, fas yéene na baal ci li nga xam moom la ko yoon may mu baal leen ànd ak ñoom liggéey réew mi Sénégal jëm kanam. danoo gañe ci Touba moom man damay wax ne. gañe woon na ñun li ñu li li ñu bëggoon rek mooy gañe Sénégal te gañe nan ko te wax nañ ne wax dëgg yàlla ñun suñu liggéey bi ñu ci def ak ànd ceeg am Ndam Adja Aïda la def na ci liggéey bu mag boo xamante ni euh, euh, bu ñu bari meloon na moom wax dëgg yàlla dëkk bi li fi président de la république euh, bëgg dana kaam may am loo may may may profité nag occasion bi am lu ma ci wax di wax ne la may faral di dégg nit ñi di wax naan Euh, Macky Sall gañewut Touba waaye gañe na Sénégal waaye nan loolu wax jooju nit ñi nan ko bàyyi teg ci suuf te bàyyi di polémique ay wax yu bëree bëri rawatina nag jamono yi nii dégg muy wax yoo xamante ni ci kilifa diine yi lay jug ak wax yoo xamante ni day dem ci euh, euh, diggante tareexa yi ak tareexa yi wala ci diggante politiciens yi nanu bàyyi loolu réew mi sunum réew ñun ñoo ko bokk kenn mënu koo xar ñaar murit ak tijaan ak xaajar ak laayin ñëpp benn lan li nu bëgg mooy jëmale nit ñi ci yàlla moo leen taxoon a jug euh, kon bu kenn wax ne président Macky Sall gañewut Touba waaye gañe na Sénégal man mii di wax ak yéen kenn gënumaa bokk ci dëkk bi ci dëkk bi laa bokk président Macky Sall laa doon wooteel moom laa doon jàppale am na ci ñeneen ñoo xamante ni jàppale wuñ ko loolu mooy Sénégal boo demee ci fu Macky Sall dëkk muy Fatick nu fi limee ne am na fi nàngam lim nañ fi ne fi amu fi nàngam diw am na fi nàngam kon foo mën a doon ak foo mën a nekk ñii dañuy ànd ak yow am seenu gis-gis ànd ak yow ñii amuñu gis-gis ñàkk ànd ak yow waaye bu nu wax ne lii la wala lii déedéet nekkut ci loolu ndax tey li président euh, Macky Sall am ren Touba mosu koo am Touba kon nag ñi fi nekk buñ fi nee di liggéey ni ñu war a liggéeyee yàlla mën naa dogal beneen bis nu am fi comme ni ko bëggee waaye bu kenn wax ne euh, lii la wala lii moo tax amu fi ndam déedéet loolu man d'accord ma ci ndax ñu bari tey ci ay kilifa nekk fii. Eh, ñoo ngi doon ànd ak président de la république di ko ngir mu am ndam kon bu kenn wax ne eh, président de la république waa Touba doon ko boycotté wala déet loolu wax la joo xam dama koy ñaawlu ndax ñun ñi nga xam ñoo fi ne wala lu ëpp ci kilifa yi fi ne moom lan àndaloon di ko jàppale tey boo demee Dakar it wala nga dem ci yeneen son ñiy wax ñu ñëpp son bu si ne dañ fay limal diw ne am na fa nangam limal diw ne am na fa nangam kon du ñëpp ñoo ànd moom nit ñi nga jug ñëpp ànd ak yow moom yàlla mayu ko kenn bu ko yàlla doon maye euh, may ko moom mi nga xamante ni moo sàkk jaam ñëpp te am na nañu am na ñoo xamante ni euh, gëmuñu sax ne yàlla am na kon euh, loolu maa ngi ñaawlu di ko di ko di ko di ko di wax ne nit ñi nañ bàyyi loolu ñun nag wax dëgg yàlla liggéey nañ fi liggéey bu rafet ci dëkk bi yàlla dogal na it président Idriss Seck moom moo moo fi jiitu waaye liggéey nañ fi loo xamante ni président Macky sàlla bi mu fi nee ba léegi nii. Euh, wax dëgg yàlla di yàlla nga xëccoo élection fii si Touba mosu ko am man nag euh, xañ na du bi muy dugg si di leen jàppale daanaka si semaine la toll waaye def naa ci liggéey bu mag boo xamante ni mi ngi jaare ci euh, mouvement Ndam wax dëgg yàlla ñoo ñëw waxtaan ak man te dëkk bi ñor ma sëñ Touba ñor ma ma gis ne wax dëgg yàlla président de la république li muy def ci Touba def ko ci ndax damay wax ne du Touba dong ndax ñun fépp la ne Euh, mu ngi koy def ci yeneen dëkk yoo xam ne dañ fay dem jàppe ko comme sunu Touba euh, kon euh, wax dëgg yàlla yoon la si ñun jàppale ko soutenir ko ba li mu bëgg mu am ko muy ndam te yàlla defal na ko loolu nag jëloon naa si engagement defe naa wax naa ko fii ne ne woon incha allahu rabbi dana am ndam suñu borom dana ko may tey danañ ko jàppale te it fépp foo xam ne am nañu fépp taalibe si biir réew mi ak ci bitum réew digal nañ ko mu wooteel Macky Sall te Euh, incha euh, gis nañ ci ay résintant bu baax ndax euh, liñ am fii baax na liñ am ci département Njaareem ndax participer nañ ci lu bare bari dem nañ fa wax ak ñoom ñu jàppale ko ay baam Bambey ak it département Thiès it noonu fépp foo xam ne am nañ fa njaboot rek dem nañ fa waxtaan ak ñoom ngir ñu jàppale tey it loolu gis nañ ci ay résultats.